assalamu aleykum bandiraɓe raneru bandiraɓe raneru mi sonko mi salmini on bandiraɓe fuutanke min sonko mi salmini on mi yeddi um ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci tertu bi ngeen ñu tertu di leen gërëm bu baax a baax a baax ndax tàng na xat na mais yéen a bàyyi seen yitte ñëw taxaw fi particulièrement la jeunesse de Ranérou mbokki Ranérou dañuy dem ci lu am solo mooy dañu war a tànn député dañoo génn ci benn mandat cinq ans assemblée nationale Ranérou amoon na député waaye député boobu li ma bëgg wax mooy Ranérou am na boog ku taxawoon assemblée ne moom moo fa taxawal Ranérou waaye kooku li mu wax assemblée nationale cinq ans def na ko ci assemblée lenn na fa Moussa wax lu nit ñi dégg mooy na nit ñi génne ay jaas yi pour dóorante loolu moo ne woon mandat am ma wax nag ne fii laa koy waxee Ranérou samay mbokki Fuuta samay maam ndax xam ngeen man sama maam ki jur sama yaay bu lay soxla tudd dëkk Njaayeen Pellaaw kon sama deret bii deretu Fuutanke la sama deret bii deretu alpulaar mi ngi ci dama ne alpulaar liggéey lañ ko xamee ak jaamu yàlla kenn xameewu ko dóor ay jaasi kenn du nangu carte d'identité boobu moo tax nag li ma leen di wax tànn député dafa am solo tànn député dafa am solo ndax ki ngeen di envoyé assemblée nationale moo war a nekk image yu Ranérou ci cinq ans yi di ñëw bu leen kenn ndax tànnal leen koo xam ne matul député man ñëwoon naa fii tournée en 2018 2018 ak léegi ñeenti at romb na. Macky Sall il est président du Sénégal depuis dix ans est-ce que si dix ans yooyu am na lu changé fii Ranérou est-ce que am na lu fi changé man de fii laa koy waxee Ranérou man gëm naa Netuku Bandum waaye xam ngeen Netuku Bandum ci wàllu politique mooy lan mooy koo xam ne soo ko falee mu liggéey réew mi ba liggéey bi baax ba réew mi baax loolu mooy Netuku Bandum nekk ku bandu du damay tànn nit parce que ñoo bokk dëkk su demee du liggéey dëkk bi du ñu gis boppam Sénégal du ci gis boppam loolu du nekk ku bandu nekk ku bandu mooy président boo xam ne buñ ko folee Ranérou buñ ci tegee ñetti at ñeenti at juróomi at ñu ne Ranérou gis nañu ay tali ci biir Ranérou gis nañu hôpital ci biir Ranérou gis nañ ndaw ñaa ngi am liggéey mbay maa ngi dox càmm jaa ngi dox loolu mooy nett ku bandum ci wàllu politique ci wàllu social nag ku nekk ak sa mbokk waaye luy defar réew mi compétence lañ ci soxla patriotisme lañ ci soxla bëgg réew mi lañ ci soxla ma wax ko démb nag fële ci roso gi naa ko waxaat fii Macky Sall dafay jëriñoo Fuuta waaye jëriñul Fuuta dafay jëriñoo Fuuta pour am ne quatre directeurs mais amul benn njëriñ ci Fuuta fii Ranérou li fi Ablaye Wade def bi muy nekk président moo ëpp li fi Macky Sall def yéen ñëpp xam ngeen ko yéen ñëpp xam ngeen ko pourtant Ablaye Wade du waa Fuuta gis ngeen président bu baax président bu baax président bu baax amul fu mu dëkk ci Sénégal fépp dëkkam la ñëpp mbokkam lañu kon buñ ñu naxati xam ngeen lan mooy importance su élection bii. élection législative bii bu dee Yewwi Askan Wi ak Wallu ndax ñoom ñoo ànd bu dee ñoom ñoo am majorité kenn dootu fi waxu troisième mandat te est-ce que ñëpp d' accord ngeen ni troisième mandat dina taal réew mi ñun ñëpp d' accord nañ ni troisième yi sax du am mais est-ce d' accord ngeen ni bis bu Macky Sall bëggee forcer troisième mandat loolu dina taal réew mi ñun nag bëgguñu réew mi tàkk. mën nañu régler problème boobu te bal du tàkk lan la ñuy def mooy le 31 juillet nañu voter massivement pour l'intercoalition Yewwi Wallu et contre Macky Sall parce que nag assemblée nationale du moom mooy gouverner rek mais assemblée nationale mooy contrôler l'action du gouvernement su leen di joxee majorité cinq ans def naa ko assemblée nationale waara neru li ma leen di laaj est-ce que Ousmane Sonko nekkoon na un bon député à l'Assemblée est-ce que Déthié Fall nekkoon na un bon député à l'Assemblée est-ce que Aliou Dembourou Sow nekkoon na un bon député kon ñun suñ leen jox leen ñu majorité ñu jiital seen doom fii ci Ranérou fii la juddoo yaroo fi bàggee fi ngeen xam ko xam ngeen ni ku dem ba am master ci nutrition dellu si toog ci dëkk bi bëgg dëkk bi moo tax xam ngeen ni kii am na niveau intellectuel pour défendre Ranérou à l'Assemblée nationale bu ngeen ñu joxee la majorité wax nañ leen ni les premières lois yi ñuy voté assemblée nationale parce que c' est l' assemblée nationale qui vote la loi moom doon na ko mën les premières lois yi ñuy mooy dund bi seer na ceeb bi seer na diwlin bi seer na suukar bi seer na sama maam yi alpulaar xam ngeen ni ataaya bi seer na kon. première loi yi ñuy voté mooy dañuy def ba wàññi dund bi au Sénégal parce que balaa ngay tabax ay pont ay autoroute ay ay aéroport nga fexe ba nit ñi lekk bu baax nit ñi faju suñu feebaree ndaw ñi am liggéey école yi baax loolu mooy premier élément de développement waaye loolu defoo ci dara tubaab yi ndax la jox la xaalis lebal la ko nga koy fay ñu la demal tabax ay pont yoo xam ne su tawee tuuti pont ba daanu nga def ci ay milliards yi milliards foog nga ni fii Ranérou milliards yi ñu def pour tabax benn pont suñ ko defoon fii ci Ranérou léegi ndox mi du taa fii kon. kon waa Ranérou il ne faut le rendez-vous du 31 il ne faut pas am na lu démarré ci yi ñëpp xam ngeen ko. élection locale yi génn une bonne partie du Sénégal a tourné le dos à Macky Sall pourtant pourtant. yéen xam ngeen ni Dakar c'est la capitale du Sénégal su suñu amee budget cinq mille milliards les trois mille cinq cent milliards Dakar la ko Macky Sall def pourtant Dakar boobu a voté massivement contre Macky Sall Macky au moins Macky Sall am na lu ko def def na autoroute Ila Touba ubbi na fa temps yi hôpital bu bees tàq def na fa nii def na fa lële pourtant Macky élection yi passé dañu voté contre Macky Sall Casamance Macky Sall am na lu mu fa def pourtant dañoo voté contre Macky Sall Thiès Macky Sall am na lu mu fa def ils ont voté contre Macky Sall Ranérou lan la fi Macky Sall def kon pourquoi Mac Ranérou war a voté pour Macky Sall yéen nag da ngeen voté woon pour opposition ndax dafa am ñu ñëwoon ne leen ñoom opposition la ñu bokk ngeen wóoru leen voté leen ñu trahir leen ñoom ñëpp dem rejoindre Macky moo tax nag pour que Ranérou maintenir sa position wan Macky Sall ni ma waa Ranérou du ñu ab troupeau boo xam ne fu ko neex la leen di yóbbu il faut que Ranérou vote encore pour l'opposition et la seule opposition ici c'est l'intercoalition Yewwi Wallu et vous le savez kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci tertu bi suñu xel suñu xel dal na suñu xol sedd na dama leen koy wax fii man mii di wax ak yéen seen sët fii am naa fi droit ku fi nekk rek sama maam nga bu leen kenn dugal ci ay débat yoo xam ne Sénégal xamuñu ko ñun ñëpp benn lañu boo demee Casamance di nga fekk benn quartier bu rëy boo xam ne Alwaar la tudd quartier bi yëpp samay maam alpulaar ñoo ko fondé ñoo fa nekk di fa dund yor fa seeni commerce nekk citoyen de plein droit boo ñëwee fii di fi fekk ay olof di fi fekk naar di fi fekk joolaa di fi fekk séeréer lii mooy Sénégal bu ñu ko kenn yàqal bu ko kenn utiliser pour def politique politique du utiliser ethnie politique mooy am sa xam-xam am sa programme ñëw ci Sénégal yi ne leen lii laa fas yéene def lii mooy sama programme waaye ñëw naan yaay sama mbokk voteel ma loolu bokkul ak politique loolu yàgg naa yàq ay réew lan moo tax waa Rwanda doon reyante lan moo tax waa Nigéria actuellement di reyante lan moo tax feneen ak feneen Afrique affaire ethnie moo ko andi ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay yàlla moo ñu boole Sénégal kenn mënul dem bàyyi sa morom kenn mënul dem bàyyi sa morom kon bu ñu nangu yenn yi Sénégal Senghor nekk na fi ba jóge fi kenn mësul dégg waxu ethnie Abdou Diouf nekk fi ba jóge fi kenn mësul dégg loolu Ablaye Wade nekk fi ba jóge fi kenn mësu koo dégg Macky Sall ñëw bugg jël Fouta di ko jëriñoo ci wàllu politique bugg a boole waa Fouta ak le senegal lool Sénégal loolu du am waa Fouta Fouta mooy Sénégal wax naa ko démb Omar Foutiou Tall moo dugal islam Sénégal ñun ñi ñëpp moo ñu def jullit te Fouta la jóge Thierno Souleymane Baal moo njëkk def démocratie ci àdduna xam ngeen la révolution Torodo de 1776 kon Fouta mooy Sénégal du ñu nangu kenn boole waa Fouta waa Sénégal. kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox rendez-vous le 31 juillet mais di leen jox rendez-vous après élection bi ci suñu tournée nationale ñu ngi leen di gërëm bu baax merci beaucoup. voilà euh, mi ngi noonu ce qu'on peut appeler aujourd'hui euh, l'appel de euh, la coalition nationale. Senegalese music, all you African music, all ce qu'on peut appeler aujourd'hui le discours de Sonko mën nañ ko woowee appel à l'unité nationale l'appel de Ranérou pour li nga xamante ni moo di euh, cohésion nationale bi Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar euh, ñaar père Djibi Gueye Ndiaye mi ngi accéléré ndax itam euh, ñi ngi ñuy xaar Linguère te vraiment asamaan si néew mel ak information météo yi ñu am yi war tax ñu gën a accéléré kii oto yaa ngi dem ca kanam Euh, pour euh, ñu teel a génn fi nga xamante ni moo di euh, Ranérou on tire un peu donc loolu mooy la situation. ak li situation bi mel xam nañ ne on va essayer de progresser comme oto yaa ngi dem bu gaaw on progresse rapidement. destination Linguère fi ñuy xaar euh, donc euh, euh, ñoo ngi defaruwaat gis ngeen ni oto yi day tourné oto yi day tourné parce que ñoo ngi jëm fi nga xamante ni moo di Linguère di leen jox dig daje ci kanam tuuti ñu defal leen benn résumé état bi nga xamante ni moo di état bu Ranérou Ferlo